kon combat dama ci yàgg. du man soo moroom yi ñii bi ñuy jàngi métier ñii jàngi football ñii man dañ ma dama leen man xeex laa kon man suñ ma fayee pour ma dóor nit c'est avec plaisir. te ñaabu ndaw toll nu jaaxal. am telling yu toll nu ma jaaxal. Mhm. moom nee na Bour moo gën a moo la gën a dërkis. la dëgër de. <laughs> man damaa dëgër ay. Zarko yaa dëgër man dama wow de ñaar am na xew de. si bu rëy sax. dama koy géem par force munu si dara. mais Zarko sama doom sax du ma ko xeeb man doomu aadama non non jamais du ma xeeb sportif sa doom boo koy dóor sax doo ko xeeb. mais damaa hmm. loo koy ñaanal mu ne jàpp rek laa koy ñaanal. <laughs> amiin. <laughs> ke xamal lu may ragal xamal lu may ragal arbitre sifflé mu dem taxaw ginaaw entraîneur am naan ko demal. ñaa loolu rek laay ragal. non yow déggoo yow déggoo lu mu la déggoo lu la wax de man yow yow tamit man mënu ma ay wax man sama wax yëpp xuloo la après ñu xeex. Ah. man su ma lay wax dama lay xuloo pour ñu xeex man ay wax yu neexal yii nii non man du ma ko def góor non non waxuma laa ñu war a signé nii compra euh, contrat pour nga war ma dóor ma naaj ma dóor la nga naaj man ça me fait plaisir quoi. Mm-hmm. mais keroog nga gisee seen dernière signature bi ñu amoon Batra. ñu gis ne Zarko ñëwut. non moom ñaa bu ndaw keroog mu jël euh, jënga kàddu yam fa yëkkati comme mu ne bii passé ba mu amee sa fii ñëw na ba fii bii fii fan mu ne ba mu amee da ngay wax lu leer quoi ba fan fan da ngay wax exact lieu bi mu amoon bu le fii voilà ba mu amee deux deux heures fan la nekk ne juge na deux heures fu mu deux heures fu mu nekk xaaral ma ñëw mu ngi yarax voilà da naan bi mu amee deux heures yarax waaw xaaral ma ñëw pas ñëw na ñëw na ànd ak ay mafia am jaar biir gaaf dem signature yi hmm. départ jël autoroute nationale dem ñibbi këram lan moo tax keroog yow sañoo ñëw fekk ko fi euh, mooy Batra nga ñëw signature bi. vol la jël fi ñu jaar gannaaw moom amaguñu avion jëlee vol moom mënuñ kaa bañ mënuñ koo gis mais waaw mais loolu yëpp détail day neexa rek mais euh, man li ma lay wax signature boobu dafa fekkoon ma nekk ci yoon di daw lu bëri nag ak oto bi pour egsi mënuma egsi yéex a egsi xam nga woo woo promoteur bi jéggalu ko bu baax a baax tardé moo tax mais xam nga ni Zarko bu bu demul signature am na lu ko métti lool yàlla seede na loolu ak ay nitam mais fi ma nekkoon ci boppam moo sori yaa ngi comprendre loolu kese kese kese moo ñu empêché di masaw euh, promoteur bi di ko jéggalu bu baax a baax encore une fois makan moom xam nga di ko ñaanal père Gaston euh, ne jàmm ba dellu si waat si ay activité loolu kese dépassé non non mu xam na moom ma dépassé li mu yàgg yàggaay bi moo ma dépassé ah man xaw ma lu yàgg dëgg man la ma xeex kaay xeex moo ma gënal kaay lekk li mu yàgg nii moom ma moo ma sonal moo ma dafa dem ba soof ma wax ju bëri dañu war a xeex xeex bi mu jeex. dañ ko laaj mu ne Guédiawaye Zarko mosu fi am victoire fi bëri na fi fit seen. astafurlah mu lim lim ay ne ba daan bëri na. kan ak kan ñëwal ma. maam Balla. waaw eh, ñu Boy Niang numéro 2. Eh, sama premier combat wa ñoom ñoo ma jox victoire. sama première sorti bi Ama Baldé di bëreeg eh, kii non eh, Baye si. mu ne moom mu ne xooluma. Ah, waaw mais ah, xanaa kon day fekk bu ma jëlee ba waa ci lay doon <laughs> ndax xam naa ne moom moom mu yéen dama leen yéen yéen yéen dimanche vingt heures vingt et une fii ngeen di njëkkante. voilà pour wax ji bañ a bari rek yéen bu neexee yàlla fii ngeen di njëkkante voilà. mais Zarko euh. euh, dama gis da nga jël combat à la légère quoi da jàpp da ngay ñëw jàpp ñëw daan ko mais est que xam nga combat boobu du combat boo xamante ne war ngeen xeex war ngeen dem àndoo ñëwaat xaaral ko ne prix day daanu. moom ñaar ah. ci bëre ci bëre bëre xeex. waaw. Eh. bu ne prix moom day daanu. xanaa kay mu bañ a taxaw. da ngay joxe joxe temps wala. man nu ma joxe temps man bu buggee ñu bëri <laughs> cent vingt minutes coono ji man on est prêt. le physique est là le mental est là et tout moom ñun pare nañu quoi. moom lu mu bëgg ñu bëri rek ñu bëri loolu. dama dégg ñu ne bu ne bu dix huit heures xasee jot. jëm buy lëndëm. buy muy gën a lëndëm. xanaa ah, xamoo lu mu lëndëm lëndëm si la mbaam di gën a gis. Ah? mbaam guddi rek lay dox. mbaam men xuux guddi rek lay dox. lu mu lëndëm rek ah? déggoo ma de. ba mais cest li nga xamante ni moom la nit ñi umpale. man wóoruma fu may làmb di yóbbu. man dama ñëw fii pour teral ay copains teral yaay teral waajur. ñun amatuñu lenn rek lañ soxla muy fexe ba bëri combat royal. combat royal moom bis bu ko bëree bu neexee yàlla dinañ inf waa grand F dra combat royal euh, chaise bi incha allah mais euh, derrière loolu non ñun suñu objectif rek. compétiteur ñun dañuy compétir rek. waaw Zarko ban combat ban ban combat. kii booy ñaabu ndaw. ñaabu ndaw moo koy jël boobu maa hmm. ngi. non jël jëluma beneen combat. ñuy wax nii rek. <laughs> ñaabu ndaw wàññeeku ci combat bi. nga wàññee ci combat bi. ngeen am problème ndaw ñoom xam nañ ne athlète lañ yore. xam nañ ne ñoom la gën a xam ne athlète la ñuy bëreel. Eh, ñoom xam nañ ki ñuy bëreel. te man it xam naa leen baax a baax. Mm-hmm. Eh. man xam naa li ma préparé pour ñaa eh, te yor nañ loolu. Hmm. ñoom xam nañ bu baax dofuñu jinn jàpp leen. man man moom wax dëgg yàlla pour man la vie tout est risque. Hmm. man dama jàpp ni moom àdduna lépp lépp risque la hmm. te xam nga dama mel ni philosophe bu naan celui qui ne risque rien n'aura rien dans la vie donc ñun dañuy teg jeexal rek ñun saa yow Lamine eh, man buñ ma fay nag yow sax mu Honda mu fayoon nag yow sax mu jël la yee parce que euh, boo xoolee euh, suñu moroom yi bëri na ci ñoo xam ne ñoom ñoo ñu ëpp ay defet mais yàlla euh, maanaam mën nañu seen wërsëg ci ci ci ci làmb amuñu loolu ñun mm-hmm. te ñun teg nañ foofu suñu bët moo tax xaaruñu kenn xam nga boo toogee tamit xaaroo kenn ku la jàppale ah, nga mu leer na ni yow lii moo lay may kon donc doo xaar nit ñun xaaruñu mbindeef lenn rek mooy suñu mooy mooy suñu déglu mooy suñu staff nañu wax nañu komba fay nañu lu ko jar ma ne leen jël leen punto pilota nooy te ne naaraka seerti yow amuñu leneen ñun combat bu ñu jox bu ñu jox bu ñu inter bu bu ci staff bi nangoo ñun dañ koy jël parce que dañuy liggéey man duma mbër boo xamante ni damay dama ñëw bëri benn combat wala ñaar wala ñett non man maa bëri cent trente combat benn saison man na nit ñi bëgg rek ak promoteur bi ak sama jeex na quoi xëccoo parce que gis naa quatre promoteurs yoo xamante ne na fu ah yow léegi yow yow yow kon nag may yërlu. <laughs> maa doog a doon yooyu léegi mooy catal quoi yow <laughs> mu daan yow bëri jinne nga yooyu mooy catal <laughs> baax ko rek potit laa defee la def ko ji non mais du dara parce que promoteurs yi ay liggéeykat lañu dañuy liggéey journalistes yi dañuy liggéey mhm. te xam nañu Zarko kat la day liggéey ñëwul fii pour caaxaanu ñàkk fayda yi mbëri ñu naan la kaay bëreet kii nga naan non du ma bëreeg moom dama ko kii ak dama ko kaa tey boo demee seen kër ma la sumaay baraag la nga dem di xaar lan ngay xaar di entraîner pendant plus de années ñu ñëw wax la combat ne la diw bi nga ni man maa ko raw damay xaar tu attends quoi mon gars vas-y dama nga xeexi bu dee góor nga saa ay góor yombul de waxuma laa góor gu dëgër nag saa ay am nga xew de waaj dafa dëgër te dafa pare de non yow ba arbitre bi wallaahi azim dox sama kaw man góor dox sama kaw. ah non eh, tamit. borom daaru seen loolu non non non <laughs> daa am lu yow foofu amul dóor. Hmm. foofu amul dóor. non dóor foofu ay caméra fa am. mu dox sa kaw nag non du ko def man maa koy def. ñaa bu ndaw yow wallahi azim du ko def man maa koy def. ah nee na ah, du a ngi foofu. Ah, moom li mu wax yëpp ak man li may wax yëpp fexe leen ba après image yi da ngeen montante. waaw <laughs> waxuma la ku ñu mës a conseil <laughs> oh maa ngi lay siyaar maa ngi nii man la sëtu wallaay njool waaw ah, jëflante la dama guy lu mu rëy rëy mënul mat mais de déggoo de non du jihaat jihaat non du ko def noonu la seer du ko def si kooku ba arbitre sifflé xel lay jéem a teg te bu ñëwee fii fekk ku ko gën a muus fuuf. macha allah sama deuxième mm. question mooy. combat bi mm. combat gis nañ ne bëri na coow parce que combat bi mm. bi nga koy jël bi nga jëlee combat bi. combat bi bi nga ko jëlee am na coow. li tax am na coow mooy dafa jël jën kayre daan ko. ñëw taxaw ñu ne Zarko est que waroon na jël ñaari avance yi parce que instant bi nii bu jëlu woon jaabu ndaw mm. mën na bëre ak Lac de Guiers numéro 2 nga mm. ñëw daan jéen kay coow lu bari mm. day delloo avance bi du ko delloo ñu dem régulariser combat bi CNG nga mujj ko bëre combat bi est-ce que du risque ci bu la ñaabu ndaw daanee doo du ma daan nag dama dul daan daan boobu ngay teg fële naan boo ko daanee ndax di nga jël lat ah. voilà mais du ma daan voilà ñuy kelee ñëwal ñëwal gars yi ñëwul may yërndu yow tamit <laughs> da may catal quoi waaw mais yow kooku xam nga loolu du suñu suñu suñu mbir xam nga mbiru waa ji toog la Pape Seck comprendre nga ñun dañuy ñëw rek nañu dem xam man xam lan mooy sama problème dem entraîné xëy yeewu teel damay teel a yeewu eh man damay teel a yeewu man fu fu góori bonko borom jabar ñu teg leen tànk ñuy bañ a jóg man damay fipp buux ma géej yee man a yeewu entraîné ba léegi yee te booy yëpp da laaj Pa Biram Ndiaye heure bi may yeewu man di entraîné eh, damay nekk géej di entraîné yi entraîné ba moom mu nekk fa julli fajar ba pare booy mi soog ñëw mu naan leen yéen xanaa bëgg leen daan sarko di leen entraîné comme moom boo xoolee li nga gis rek nga xam ne ñun pare nañu. non non man du ma maye. non bu maye yow. non yow ku dul maye billet dafa am man sama combat bii nii ñaata laa jënd bii 2 millions. 2 dëgg loo say si signature sama bonne presse bi. ne billet 2 millions. non Jono Soyasi. yow dama dama mbaa gisaguma kenn nag maay xaar rek. ba tey dañoo wéet. waaw mooy comme chaque fois rek mooy li ñu may wax loo nii woote. mais euh, normalement normalement Zarko war na ak statut normalement ah, normalement ak statut bu ñu am nii war nañ mun a dépasser sax woote non mi ngi ñëw ko koy tëj normalement dans les normes Zarko warul sax toog di woo benn autorité biir Grand Yoff warul toog di woo benn euh, footballeur biir Grand Yoff parce que ñun li ñuy li ñu li ñu yàlla nattoo mooy bégal Grand parce que boo xoolee lii rek mbégte la waa Grand Yoff yëpp ay dajaloo jiital seen doom dem kafoore indi seen doom indi leen ndam kon loolu benn autorité warul xaar ñu ko ci woo ñoom ñett dañoo dañoo war a participer te man duma ko sax yëg man dama war a toog rek dama war a toog rek ñu ñëw ne ma ah diw de moo moo moo jàppale lii fans club wala diw de moo jëndal population de Grand Yoff sans billet comprendre la ñu war a toll ak autorités yi que autorités yi nekk Grand Yoff na leen lépp Grand Yoff la ñu jàngee Grand Yoff la ñu footballé même pro yi la ñu footballé la ñu defee lépp mm. kon doomu Grand Yoff bu jógee nañuy jóg ñoom tamit dañ ciy jàpp ci loolu rek xam nga dañ ciy lancé un appel solennel ak euh, suñu suñu délégué euh, euh, délégué de quartier ñu koy wax père Abda Diallo ñu koy nuyu moom aussi de passage di nga wax ne xam nga na wax ak autorités yi na wax ak Khalifa Sall na wax ak Boubacar Camara na wax ak Modiob ñuy ñëw di jàpp ci combat yi dañuy ñëw di dooleel population de Grand parce que ñun li ñu indi man Zarko li may indi Grand li may indiwaat Sénégal mooy fexe ba changer image yu Grand fexe ba changer étiquette bi ñuy teg ci deru Grand parce que Grand Yoff dëkku noble la Grand ay noble donc duñu mës a nangu ñun ñu koy ñun ñu koy yàqal parce que euh, malgré yàlla may nañu suñu wax ñaari nit ñett nit dañ ko déglu kon donc bu ñuy wax ci Grand Yoff ak xol la ñuy waxee quoi donc autorité dañ leen nuyu dañ leen di sant rek di leen gërëm di leen ne nañ ñëw jàpp ci bés bi Boubacar Camara ah fii la dëkk tout près Khalifa Sall fii tout près la dëkk xam nga Madiop tout près moom tamit n'est pas loin sorante wuñu kon donc ñoom seen bés la ñoom Cheikhou Kouyaté ñoom Diib Dundu Gis ñoom euh, Euh, comment dirais-je euh, Moussa Moussa Moussa Moussa Moussa Kalamu ñoom ñëpp ñu ngi woo ñëpp euh, Ibrahima Fall di woo tamit Ibra Gueye DG Carrière ak grand élage ñu ngi gërëm ñëpp grand papi borom HLM Padois ñëpp bàyyiwuñu kenn daal képp koo xamante ni yaa ngi li may wax rek mooy que ni xam nga yow dama bàyyi yow góor du yëndu góor bàyyi du ngeen ma bàyyi sama gars yi sama groupe ñoom man ak ñoom ñoom far du loo xamante ni xam nga bëgg naa sax ay nit di ko xam parce que comprendre nga xam nga nit yow waroo fësal sa lépp daal mais man ñi ñi nga xamante ni paal jàmm gën man ñëpp mooy bëggee parce que man alalu àdduna la comprendre nga man waaw man ñëw ma fii pour di bëree wala di nit di ma seetaan di am stress man na may dem pour divertir comme ni comme ni ma koy defee ci football comprendre nga ci loolu rek dañuy sant waa jàmm gën bu baax a baax njal mi Siteu ñu ngi kontaan bu baax a baax ci ni muy taxawoo ci xam nga yoon yi ñuy dugal ak lépp ba délégué ay nit ñu ñëw ci man. Ah, donc moom rek moom euh, rek doy na. <laughs> non combat bi doy non combat bi bi mu diisee dafa yàgg. Ah, dafa yàgg diisee dafa yàgg. non yow yow yow pimpi jàmbaar te jàmbaar day bëgg jàmbaar dama ne la. jàmbaar te jàmbaar day bëgg jàmbaar. dëgg Zarko bi jàmbaar la dama koy jege jàppale ko dooleel ko. du daw làqu. saa waay man sama moroomu góor. Sénégal. mais loolu lu tax wax loolu. waaw sama